3S Pro. ca mi ngi noonu Kalidou combat bi ñu doon xaar ay weer weer ya daal di ñëw ñu koy xaar ay semaine semaine ya daal di jàll ñu koy xaar ay bis bis ya daal di jàll tey bis ba ñëw na Kalidou di le 2 octobre ñu ànd ak njaay Ndiaye Fallou production l'homme des grands événements laa ko tude moom Fallou Ndiaye ndax moo xam fu xale yi nekk moo xam fi nga xamante ne espoir dañ fa nekk mu dem di leen jëlee di komba tegal combat ñu ngi moom fallu Ndiaye si bis bu rëy bi tey mu am fii si stade Iba Mar Diop Kalidou fii ndaanaan bu nekk jaar na fi champion bu nekk jaar na fi waaye tey mu indi fi ñaq ki nga xamante ni mooy jeex jàmm boolekaak Ibou Afia kaldu boo ne jeex jàmm ñaari tëri la jóge waa LGB bi dar ko mu ñëw fi nga xamante ni mooy Medina euh, feefu fi nga xamante ni mooy Ibou Afia ñu fas yéene jàkkaarloo ñoom ñaar doo wax na ak ñoom am na lu jeex teg seen diggante ñoom ñaar Ibou maytu ko a ba ngi noonu di wax ak ñoom jeex jàmm cinq combat cinq victoire waaye Ibou Afia combat mi bëri def ma waaye daal xam naa ni am na quatre victoire moom Ibou Afia Jeex Jàmm ñaari tali face ay bu Afia Midina waa Midina ñu ngi nuyu nuyu waale sama compagne Mame Aram Diop wala Ndeye Aram Diop kooku Cheikh Amadou Jara tey fa yendu ndeysaan fa laa añi jee Modou Anta kooku sama yumpaañ la dafa baax ñaari xale yaa noonu mbokki internet yi mbokki diaspora bi waa France Belgique Amérique États-Unis Canada Afrique du Sud waa Mauritanie ñaari xale yu doon xaari boobu léegi ñoo ngi noonu Modou Anta diggante jax jàmm la ak ki nga xamante ni mooy Ibo Afia Modou Anta. nan la demee Ibo Afia Colobane mbooloo jeex jàmm Doudou Bakar Sarr moo ñu wan ginnaaw 5 combats 5 victoire Ibo Afia 6 combats 4 victoire 2 défaites. moom Ibo Afia. moom Ibo Afia. Modou Anta mu nekk combat de déclenchement si ñaari xale yi ku nekk si ñoom ñaar bu daanee combat fu mu ko war a mën Anta. bari na ñoom ñaar. ñoom ñaar ku ci ne bii mooy sa premier grand combat. la ku daan war ngaa daan. eh nga daan eh! ko. Iba Afia door na ko door na daje nan pante ni ñoom ñaar daje nan. jeex jàpp na jeex ak caxabal na ko caxabalaat na ko. Ibou na wóor Ibou Loye na jeex takk na ko. jeex takk na ko daan na ko waaw waaw looy looy la looy. jàmm moo doon jàll ba rey na jàll ba rey na waaye jeex jàmm mi kii arrêté naa jeex jàmm oh mbër la kii arrêté naa jeex jàmm six combat six victoire kii arrêté naa jeex jàmm Modou six combat six victoire Modou xale bi dafa dina mbir ndaanaan la Modou xale bi dafa dina événement bu rëy waaye jeex jàmm ndaanaan la ndaanaan la waaye nañ encouragé Ibou Afia daan na ndaanaan tamit mbooloo bi mu fi andi bëri na mbooloo bi bëri na Ibou Afia ndaanaan la Baye Fall mu ne teewul lii ndeysaan xool ko sportif la sportif la waaye na leen bàyyi leen ma wax ak moom waaye gàllu jël ma image yi jëlal ma image yi Ibou Afia waay lii dafa rafet Modou Anta waay kenn du moom waay Modou Anta lii ñu solo si lamb oh kii mbër dëgg la lii ñu solo si ñaari xale noonu la sëriñ lii ñu solo si ñaari espoir tey wane nañ seen bop ñoo ngi koy ñaanal moom Ibou Afia mais kenn du Fallou Ndiaye waay kenn du Fallou wax naa ko borom Ndiaye production ndaanaan la lamb jaa noonu lamb moom Ibou jeex na jeex na am na lu xew oca mi ngi noonu Kalidou combat bi ñu doon xaar ay weer weer ya daal di ñëw ñu koy xaar ay semaine semaine ya daal di jàll ñu koy xaar ay bis bis ya daal di jàll tey bis ba ñëw na Kalidou di le 2 octobre ñu ànd ak Fallou Ndiaye Fallou production l'homme des grands événements laa ko tuddee moom Fallou Ndiaye ndax moo xam fu xale yi nekk moo xam fi nga xamante ne espoir dañ fa nekk mu dem di leen jëlee di leen tegal combat ñu ngi koy félicité moom fallu Ndiaye si bis bu rëy bi tey mu am fii si stade Iba Mar Diop Kalidou fii ndaanaan bu nekk jaar na fi champion bu nekk jaar na fi waaye tey mu indi fi ñaq ki nga xamante ni mooy jeex jàmm boole kaak Ibou Afia kaldu boo jeex jàmm ñaari tëri la jóge waa LGB bi dar ko mu ñëw fii nga xamante ni mooy Medina euh, feefu fi nga xamante ni mooy Ibou Afia fo fas yéene jàkkaarloo ñoom ñaar Aldo wax na ak ñoom am na lu jeex teg seen diggante ñoom ñaar Ibou maytu ko Aldo ba ngi doon di ak ñoom jeex jàmm cinq combats cinq victoire waaye Ibou Afia combat mi bëri daf waaye daal xam naa ni am na 4 victoire moom Ibou Afia jeex jàmm ñaari tali face à Ibou Afia waa Medina ñu ngi leen di nuyu di nuyu waaye sama compagne mam Aram Diop wala nday Aram Diop kooku Cheikh Amadou Diarra la tey fa laa yendu ndeysaan fa laa añi jee Modou Anta kooku sama yumpaañ la dafa baax ñaari xale yaa ngi noonu mbokki internet yi mbokki diaspora waa France Belgique Amérique États-Unis Canada Afrique du Sud waa Mauritanie ñaari xale yu xaari boobu léegi ñoo ngi noonu Modou Anta diggante Jax Jàmbala ak ki nga xamante ni mooy Ibo Afia Modou Anta. nan la demee Ibo Afia Colobane mbooloo Jax Jàmm Doudou Bakar Sarr moo ñu wan ginnaaw 5 combats 5 victoires Ibo Afia 6 combats 4 victoires 2 défaites. moom Ibo Afia. moom Ibo Afia. Modou Anta mu nekk combat de déclenchement si ñaari xale yi. ku nekk si ñoom ñaar bu daanee combat fu mu ko a mën yóbbu Modou Anta bari na ñoom ñaar ñoom ñaar ku ci ne premier grand combat waaye léeg-léeg la ku daan war ngaa daan eh nga daan eh! ko Iba Afia na ko door na daje nan pante ni ñoom ñaar daje jeex jàpp na jeex ak caxabal na ko caxabalaat na ko Ibou Loye def na wóor Ibou na wóor jeex takk na ko. jeex takk na ko daan na ko waaw waaw. looy looy la looy. waay waay jàmm Modou Anta jàll ba rey na. jàll ba rey na waay jeex jàmm mi. kii arrêté naa jeex jàmm Modou Anta. oh mbar la. kii arrêté naa jeex jàmm. 6 combats 6 victoires. kii arrêté naa jeex jàmm Modou. 6 combats 6 victoires Modou xale bi dafa dina mbir. ndaanaan la. Modou xale bi dafa dina événement bu rëy. waaye jeex jàmm ndaanaan la. ndaanaan la. waaye nañ encouragé Ibou Afia. daan na ndaanaan tamit. mbooloo bi mu fi andi bëri na. mbooloo bi bëri na. Ibou Afia ndaanaan la Baye Fall la. xool ko mu ne teewul lii ndeysaan xool ko sportif la sportif la leen bàyyi leen ma wax ak moom. nee yi. jëlal ma image yi Ibou Afia. waay waay lii dafa rafet Modou Anta. waay kenn du moom waay. Modou si lamb. oh kii mbër dëgg la. lii la solo si ñaari xale. noonu la Serigne. lii la ñuy solo si ñaari espoir. tey wane nañ seen bopp. ñoo ngi koy ñaanal moom Ibou Afia. kenn du Fallou Ndiaye. waay kenn du Fallou wax naa ko. borom Ndiaye production. ndaanaan la. lamb jaa ngi noonu. xam lamb moom Ibou. jeex na jeex na. am na lu xew. am na lu xew. lu xew. am na lu xew miir ba daanu lay léeg la ba jàmm dina am Modou Anta ba gaañuwuñu ay waay suñu xale ya ba gaañuwuñu Modou Anta miir ba daanu na miir yi ba maar ba job ba daanu na suñu xale ya ba duñu gaañu kàll ñu toppal ma xale yi ñu xool kàll ñu kàll ñu dem ñu xool xale yi ba duñu gaañu ndeysaan miir ba daa daanu lu miir ba daal daanu ba xale yi gaañu wuñu eh, eh, eh. waaye li damay fàttali xale yaa ngi ne ndeysaan ñu ngi leen di jàpp di leen yóbbu sapeur ndeysaan yàlla bu si kenn ñàkk ba kanam yàlla bu si kenn loru si xale yi jëlal ma nday saan oh deret ba sang na ko oh métti na ndeysaan li mettina na waay kàllu ñu gën jóge kàllu ñu gën jóge xool xale yi ndeysaan indi leen fii ndeysaan na leen évacuer ndeysaan oh, oh, oh. ba kenn gaañu aussi rek ndeysaan oh, oh Kalidou miir stade ba daanu na Kalidou xale jeex-jeex ma ya gaañu nañu Kalidou xale jeex-jeex ma ya gaañu nañu Kalidou xale jeex-jeex ma ya gaañu nañu xale ja jàmm ya gaañu noonu Kalidou yàlla bu si kenn ñàkk ba kanam bu fekkee ay blessure rek alhamdulilah.